jiital ñaari rakk yi nga war a jàng yi rek ba tey tam du ko nangu moom yonent bi comme ni waxee sallu kamaa ra'aytumuuni usalli si noonu rek lay wëree jàngale na ko leer na ci téere wird yi itam ko cheikh bi waxee rek noonu lañ ko war a defee waaw kenn waru cee yokk maanaam kër benn salaat fàtte téeméeri yoon lañ ko a jàng ci wirda man danaa ko def ñetti téeméeri yoon su boobaa du nekk ci wirda leneen la waaw nga dem di jiital laa ilaaha illallaah ci kaw astaghfirullah wala ci kaw salaatu ala nabi ba tey itam ci kaw tayaat duñ ko nangu waaw soo ko defee nag te tayoo ko su boobaa da ngay taftalaat wirte wi ni mu war a taftalaat nga sànni la nga ca yokk dal di jàngee ko téeméeri astaxfirullah sa wirdaadu saa mu ne bokk na ci charte yi nga xam ne pour excellence la maanaam lu mat maanaam li la war yow def nga ko waaye bëgg nga lu gën a mat wa chartun lil kamali al xudur wa istixbaaru surati nabi sallallahu alayhi أو القدوة عند الشروع ودوامه لمن قدر واستقبال وجلوس كالصلاة وبدء باستعاذة ثم بسملة ثم فاتحة ثم آية تنبئ بطلب الذكر ثم تلبية بعدها وقصد وقصد امتثال وختم بآخر اليقين ثم دعاء برفع كف وكره jaxrun wa tabassum waaw mu ne bokk na ci charte yi nga xam ne pour mbir mi nekk lu rafet rafet maanaam excellence seen wax ya nga teewlu li ngay wax maanaam soo waxee astaghfirullah nga teewlu xam li ngay wax lan teewlu baat yi rek doyut la gën a mat nag mooy nga teewlu sax ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi toog yow far dégg wala nga teewlu jëmmi yonent bi mu nekk yow ci waxtu bi ngay wérde wala ci waxtu ngay wër dégg soo mënta teewlu jëmmi yonent bi muqaddam bi nga xam ne moo la jox wirde xam ne mooy royteef bi boobaa nga teewlu kooku xëy na teewlu kooku su yàggee mën na laa égal ci teewlu jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala teewlu Cheikh Tidiane loolu mën na laa égal ci teewlu jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu fekkee ne yaa ngi dugg ci wirde wi ci waxtu woowu nga war a def loolu waaw inda duxuli fil wird nga war a teewlu cheikh cheikh bi mu cheikh Ahmad Tidiane wala nga teewlu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo ko mën te itam loolu na sax teewlu gi dafa war a sax lu ne da koy teewlu benn gendeeku génn ci des ci wirde yi li ngay wirde yëpp da ngaa war a jàpp ne yonent baa ngi ñuy toog muy santana yaa ngi topp yaa ngi def ci ndigalal yàlla dégg ak itam jublu penk ak itam nga toog dappari ko jublu penk comme toogaayu ci la jàng fat dama boo waxe awdu billahi min shaitan rajim jàng bismillahi rahmani rahim war nga jàng fatiha jàng itam laaye jong xam ne ndigal daf cay feeñ comme laayaay wa an istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yumatti'kum mataa'an hasanan ilaa ajalin musamman aw fa qul istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara nga jàng laaya jooju nga xam ne yàlla nga ko nekk yàlla noonu te suurat noonu ngay jàpp nag ne léegi ndigal la yow yaa wéyal ndigal loolu nga wax la fay maa ngi julli jël maa ngi am julli jox astaxfirullah astaxfirullah ba mu mat téeméer yoon soo ñëwee ci salaatu ala nabi ba tey nga jàngat laay ji wane ne ci ndigal nga nekk ba tey inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallim labbayk allahumma rabbi wa sa'dik wal xayru kulluhu bi yadik wa ana abduka الجليل الحقير قائما بين يديك اقول مستعينا بحولك وقوتك تعظيما واجلالا لرسولك صلى الله عليه وسلم allahumma salli ala loo ciy def rek jàng laay ci wane ne ndigal ngay topp soo ñëwee ci sikkar nga ne yàlla moo digle sikkar man maa ngi sikkar dégg nga maanaam soo waxee istiaasa jàng bismillah rahmaan rahim jàng ji wane ne li ngay def te du ne yaa ko fenn ndigal la lu jógee ci yàlla ndigal ngay topp Господи, как добро ты есть на парне. mu ne te waxtu woo jeexalee wirdo wi nga motle ko axiru yaqin mooy axiru wasafat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin dégg ndax yéen bi sa bàyyi wax na ne ñaar yi ñaari laay yooyu ku mot leewoo ñaanam danañ ko tibbal ca ca tibbukaay ya gën a mag dégg nga maanaam sa ñaan bi danañ ko nangu kon ubbee ko ñaan itam barke ngi ci hmm. boobaa nag nga soog a yëkkati loxo ñaan yàlla waaw ne wa kuriha jahrun wa kasur waltifaatun wa tafakkurun fi dunyawiyin wa fi'luhu bi xafiifi nawmin wa munia laxnun wa israacun muxillun wa qaxqaxatun ci sawti mu ne sib nañ sooy wér da nga toog di wax astaxfirullah ca kaw bidal ko sib nañ bidal ko dégg nga sib nañ itam ngay muñ muñ gu bari biir wérdal sib nañ itam ngay jàllar di ko di xool sa sa joor sa càmm wala ngay teetoo sax ndax ci misaal mbiri at ay ministre toogoon ci sa kanam rek dootoo xool keneen ku dul ñi président waxi soo demee nag ba mu wóor na ne yàlla mi ngi toog nii wala yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nii toog wala Cheikh Ahmad Tidiane mi ngi nii toog kon war a toog beeg ci keneen li ci gën mooy moo tax war a beeg waratu la jublu penku moo la war ak itam concentré ci li nga nekk waaw dégg mu ne sib nañ itam nga nekk di wirde ba pare di xalaat ci mbiri àddina naan projet sàngam dana ma raw nga xalaat ci mbir nekk di wirde di wax affaire yi projet wala la xew ca marché ba ah émission bi dana jàll léegi élection bi dinañ ci wax man du ma dégg wax ji yooyu yëpp wala dépassé ëllëg bi wala dépassé bi yooyu yëpp waroo nekk di wirde di ci xalaat waaw soo demee bay wirde daal yàlla rek moo war a nekk ci sa xel moo war a nekk ci sa kanam moo yàlla lépp boo ko booleet rek nee na wa ax na surakaay moo gën a doylu ñu koy bokkaale loo ko boole rek mu bàyyi la loolu waaw julli dañoo wax ne amoo ci lu may la nga ca fàtt wirde itam que daal li nga ci ko moom nga am wirde moo tax waroo nekk di wirde ba pare di xalaat adee ak yooyu yëpp da ko war sànni comme ni nga xam ne soo taxawee di julli soo ne allah soo teg wee ci lixaam ni ngay sànnee sa loxo yi addinaag lépp noonu nga ko sànnee soo demee ba fas wirde rek noonu nga war a sànnee ci def yëpp itam ba des wirde rek sit nañ itam nga ñëw gëmmentu ne da nga wirde dégg ndax loolu liñ cay bañ mooy mën nga nekk fii di ñaan ñaanal sa bopp safaan su boobaa safaan bi dégg bu fekkee ne yow eewoo eewu bu ma tëkk rek pour jàng sa wi nga bàyyi wirde yi moo gën ba ba ngay amee waxtu nga xam ne da moom sa bopp sa xel leer nga xeewu eew moom xam ne gën leen tuurul la fenn nga soog a jàng mu ne ila faraxta famsak wa soo demee ba jeexal mbiri àddina yépp nag nga jublu ci nga mu ne aaye nañu itam yàq dégg nga sooy demee bay jàng wirdo wala wasifa wala ikkar su mën di do rek na nga xer xer gu ma tëkk pour am ko ci baat yu leer baat yu wér ndax inna allaha tayibun laa yaqbalu illa tayib yàlla dafa sell te du nangu mukk ci ñun lu mooy lonkaan dafa sell waaw xaalis fekkee ni ci def koo sàcc ñëw na dina dana ci joxe asakol dina joxe addiyo wala sarax joxewul dara xaalis bu sell moom yàlla lay naw donc da wu leer yoon wu la lew ñaan gi itam dafa war a wér ñaan gu yàq nekk rek duñ benn wàll yu am na ñeen juróom benn fukki at xamee woon benn lycée foog ne ñaan yàlla juróom benn fukki at nangu la ba benn bés mu am beneen gan yu wàlli ba kooku ñëwee ñu jàmbatal ko kaam ne ko man de maa ngi ci amee aw tur soixante ans yi maa ngi koy sikkar waaye gisuma di jàpp sëriñ bi ne ko tuddal ma ko mu tuddal ko ñaan gi mu gis ne kii ni ñu ko doon jàngee dafa am yàq mu defaral ko ko mu ñaan ci yàlla nangu ko ca saaf ñaan bu yàq nekk rek yàlla du ko nangu moo tax soo demee bay sikkar na na la wóor ne di ngay dikkaat wér na jub na dégg nga wa israun mu xil gaawantu itam gaawantu boo xam dafay yàq wala mën ngaa yokk wala mën ngaa wàññi jaru ko bay gaawantu yow yaa ci li nga war a nekkee ci at yàlla dafa wax ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun soo demee bay jaamu yàlla rek waratoo yàkkam ci da ngaa war a def jaamu yàlla gi na mu wéree waaw soo ko mën a def soo ko mënta def na gën a matee alal aqal nga def ko na mu na waaw loolu mooy jaamu yàlla bi ngay nangu waaye nekk ci safla safla safla man kan yow doo sa loxo bi sax du mën a kont loxo bi gën a gaaw sa baat bi looloo bi sikkar sikkar mi ngi mel ni rek caabi bi ngay ubbee buntu su ëppee sax ni ngay ubbee pax mi ci bunt bi du ca dugg su eesee pax mi itam su duggee du ubbi si kar itam noonu la mel dafa war a mat sëkk sëkk na mu war a matee nga dugal ko ci bunt bi mu ubbil la wa illa su eesee du ubbi su ëppee du ca dugg rek wa qax qaxatun bi sawtin nekk itam di wirda yaa ngay ngay xàq saay dégg benn xabaar ci émission yow sa xel yaa ngi wirda émission baa ngi fi wala rajo baa ngi fi ubbi ñu ngi siyaasa nga dégg ci dara dal di xat kaay mu ne loolu itam lu cib la ci yëg thank wa إشارة مفهمة wa وأكل wa ومناولة bi باستراحة bila nawmin وإلا بطل إن تقل وإلا بنى على اليقين وجبر كالشاك وهو بالصباح والمساء والمح والغروب الصباح والمساء ثانك من سونه كي جان يورده يتم يي نوي وقتيني وخون لا يي نيت يي لا ماي سي بير يورده موم لا لاي وقتيني من دغان لا جيني جيني بون خامنه luñ luñ dégg la ana caabi joxoñ armoire bi mooy maye la dagan na mu ne dagan na nga naan dagan na nga lekk lekk gu néew waaye lii moom bàyyi dàq na ko ndax ba mu nekkee ci hôpital ba di faju te docteur bi waxoon ma ne ma deel deel bëri loo koy may ndox benn suba dama ñëw di ko indil ndox mi ngi mi may xool waaye waxut ah ba man ma sonn ci taxawaay bi dem toog sama palaas mu toog ba mu yàgg mu ne asan dama doon jàng wirde la te loxoom kurus nekku maanaam loxo loxoom la doon wirda boobu feebaram gis na ba mën a tëtteekul mu ne asan dama doon jàng wird lazim taalibe tijaan si jàng wird lazim du lekk du naan ma ne ko bàyyi man de am na fu ma jàngoon ne mën naa naan kooku téere dañ ko wax rek waaye walaw juratan ab guux sax mayuñ ko ndax naan dafay fay xaalat ci kër sopp nañ sax sooy wirde soo paree wirde woo sax nga toog ba ca nga soog naan xanaa kon kooku warta naan ci wirde eh, moom la bañee moom naan kon fii li mu wax fii moom bàyyi am mayuñ la nga naan waxantuma laa ngay lekk dégg naa wala tun wax sa jaawoon mu ne man ngaa jot maanaam ci toog bi sama wet fay soxlaa yi mën na ko jot li dégg mën ngaa tëdd itam jàng sa wird pour noppalu waaye nag bul tëdd tëdd boo xam ne affaire bi dina neex ba nelaw jàpp la ba nga yàqaat sa wird yi sax wa fekkee ne nag nelaw jàpp na la ca nag boobaa wird wa yàqu wala sooy ginaal maanaam sooy continuer nga continuer ci yaqin loolu itam da ngay si at julli rek soo taxawee di julli ba mu nga sikk ndax yow ñaari rakk nga am wala ñetti rakk nga am da ngay dinaan ne wóor na mooy ñaar ñaar yi moom wóor na gannaaw yaa ngi sikk na ñett la rek ñett la wala ñaar la rek na nga dinaan ci ne moo la mooy ñaar su fekkee ne fii itam da ngaa dem juróom-ñaar fukk ci sikk ndax am nga juróom benn fukk wala juróom ñaar fukk ci nga tolloon kon na nga na ak juróom benn fukk ndax moo wóor dégg soo paree itam nga dal di jàngaat comme li nga sikk nga indi ko ba pare wax astaghfirullah téeméer yoon dégg nga soo sikkee ne maa ngi ci nga fukk nga indi fukk yooyu ba pare waxal sax sax daa dina yo mu ne wirde nak bangon lañ koy jàng والمختار للأول من بعد صلاة الصبح يصبح الأعلى والضروري للغروب والكل أداء والقضاء بعده وجاز تقديمه ليلا ولو بلا عذر لفضيلة الليل ومبدأه بعد صلاة العشاء بنحو ساعة ويستمر بالفجر وإن صلى قبل تمامه أكمل وأعاد ومختار الثاني من بعد صلاة العصر إلى العشاء الأخيرة والضروري للفجر والكل أداء والقضاء بعده ولا يصح تقديمه نهارا ولو لعذر وجاز تقديمه ليلا للعذر المترقب بوقته بعد تقديم ورد الصباح للتقديم وإن حضرت كصلاة وهو به قطع وأتم إلى فصل منى وقت ورد wirda wañtaan maanaam muxtaaram ngir de suba ma nga fa nga jullee suba ba ba yoru yor bi taxawee loolu yëpp waxtaan waxtu woo ko ci defee rek jox ko daruri waxtum da waxtu daruri bu bu wir suba ba tey ma nga dalee ca waxtu woowa ba ba jant bay fenke mu ne waaye ñaar yépp joox la soo ko defee nga jullee suba ba ba yoor yor bi taxawee joox nga wirde wi te loolu mooy waxtu wuñ tànn soo loroo ba def ko ci gannaaw loolu gannaaw maanaam yor yor bi taxawee ba ba jant bay sooyee ba tey joox la waaye waxtu wu njëkk bi moo moo gën dégg soo defee nag gannaaw jant bu so maanaam wirde wala waroon ci suba soo ko wirdewut ba léegi ba jant di so soo ñëwee guddi ji def boobaa dangay ngay éy na xay dootoo éy na joox dootul adaaw xadaaw lay nekk dégg nga mu ne daaw suba nag mën nga koo jiital ci guddi su neexee di lee sax ndax lan ndax ngëneel gi nekk ci ci kari guddi mu ne woowu waxtu mi ngi commencé fi nga jullee gee gannaaw waxtu ci gannaaw julli gee waxtu ci gannaaw julli gee ba ba fajar di cinq man nga koy jiital sa wird de suba waaye nag soo doon jiital sa wird de suba jeexagut benn laa ilaaha illallaah te sax nga dégg jumaa ji naa salaatu xayrun mina nawmi boobaa yow jiitaloo da nga mottali wirda woowa waaye soo jullee suba itam da nga wirdaat maanaam wooy jiital sa wirda suba daal da nekk waxtu gannaaw julli gee ba ba fajar di fenke beneen ñu ne gannaaw buñ jullee gee ba jàngi ci lu mat juróomi isib fii tartiib boobaa man ngaa commencé di jiital sa wérde ba ba fajar di cinq waaye soo fi doon jiital itam ba mu des benn laa ilaha illallah ñu salaatu ci jumaa ja su boobaa da nga mottali wérde woowu te du tere soo jullee fajar itam soo jullee suba itam da nga da nga da soo amee ngan mën naa soo amul ngan itam mën ngaa jiital ndax nga neel gi nekk ci ndax waxtu woowo ba ba fajar di cinq soo waxee laa ilaha illallah benn yoon dana tolloog wax juróomi téeméeri laa ilaha illallah ci bëccëg soo jàngee salaat faatihi benn yoon dana tolloo ba tey juróomi téeméer ku ko wax ci bëccëg soo waxee astaxfirullah benn yoon dana tolloo ku wax juróomi téeméeri yoon salaat ci la ci bëccëg maanaam benn boo def rek juróomi téeméer lay tolloo ba ba fajar bi fenk loolu tax ñu topp wax guddi guddi ci ay naafila dundal guddi ci ay sikkar kaw loolu ci lañ bëggee itam day jiital sa wér suba wala ngay bëgg suba mu ne wir daaw tàkkusaan itam muxtaaram mi ngi dalee fi nga jullee tàkkusaan ba fa ñuy jullee di geer loolu mooy muxtaaram laruri yu ñu ngi commencé fa ñuy jullee geer ba fajar waaye lépp ba tey mooy adaaw la du xadaaw waaye soo ko defee gannaaw ñaari waxtu yooyu mu tudd muxtaar meeg laruri yi rek adaaw lay nekk maanaam boobaa da fay waaye joxatoo waaw adaaw mooy jox xataaw mooy fay dégg nga mën nga ko waaye ba mu des alfatiha bi ngay tudd ak salaatu fatiha bi ngay tudd yooyu bëccëg rek lañ leen di jàng waaw mu ne julli wir daaw tàkkusaan moom kenn mënu koo jiital mënoo koo jiital ci bëccëg dilee am nga ngant sax waaye nag mën nga koo jiital ca guddi itam fekke ne yaa ngi séent ni ëllëg ca tàkkusaan dana fekk yow doo am joti toog di wirda soo jiitalee wir daaw suba yi ba pare mën nga caa teg itam jiital wir daaw tàkkusaan maanaam ëllëg ci takkusaan am naa rendez-vous gouverneur wala am naa rendez benn bureau fii danaa nekk ci coow xam ne du ma ko mën a booleeg toog di wirda boobaa soo wirdaa wirdaaw jiital ca gannaaw gee ca waxtu wi mu tudd léegi waxtu gannaaw gee maanaam la ko dalee ca minuit ba ba fajar di fenkee nga di jiital soo jiitalee sa wirdaaw suba ba pare tent nag ëllëg ca tàkkusaan doo moom sa bopp toog di wir de wir daaw mën ngaa jiital ñaar ñëpp mu ne wir suba nag wir mu ne su fekkee ne yaa ngi wir

dogalam boobu mooy lan mooy wirdoo nga doon jàng te mat waaw boobaa da nga mot ci loolu kon ñu taxaw ci wirde ci suba luy ma nga commencé fajar yor yor bi ko loolu mooy waxtu bi ñu tànn mooy muxtaar mi itam daruri yi bi nga commencé ci waxtu woowu ba ba jant bay so waxtu woowu yépp nag soo ko ci defee da nga jox waaye soo ko defee gannaaw loolu su fekkee ne wir daaw suba la su boobaa fay lay ci waaye du ci jox wax na la itam ci wir daaw ngoon ne la ñu ngi commencé fi nga jullee takkusaan daf fa ngay jullee di jeex loolu mooy muxtaaram ci wir de takkusaan daruri yi ma toog topp ko commencé foofu ci julli gee gannaaw julli gee ba fa ñuy noddee fajar loolu mooy daruri ñaari waxtu soo ko ci defee danga koo jox soo ko defee gannaaw loolu da nga nee na itam mën ngaa jiital wér ndax nga li nekk ci ci kër yi guddi waxtu woowu mooy gannaaw boo jullee gee ba teg ca waxtu wala ba tek ca lu wax ba tek ca temps boo xam ne mën nga caa jàng juróomi ibi bi alquran ci tartib maanaam njàng mu diib njàng mu gaawan waxtu woo waxtu woowa jotee ba ba fajar di xare mën ngaa jiital wér de suba ci ngant ak ci duur ngant wur daaw takk tan nag mënoo koo jiital ci bëccëg waaye soo nekkee ci guddi mu wër ne ëllëg ca tàkkusaan da nga nekk ci itte yoo xam ne doo ko mën a dog di jàngi sa wirda su boobaa gannaaw boo jiitalee sa wirda ci suba ba pare mën nga caa tegi sa jiite wirda tàkkusaan ndax comme ni ma leen ko waxee woon benn boo def ci guddi benn boo def ci guddi ba ba fajar di xaree ci waxtu woowu dana tollu juróomi téeméeri yoo def lu duur waxtu woowu mooy nga ne di nekk ci ci kër guddi na ci xadis sax ne yàlla ci boppam dana wàcc ba ci asamaan si di wax naan ana kuy ñaan ma may ko ana kuy tuub ma baal ba ba fajar di xare dégg nga waxtu woowu ci kerte lu am njëriñ la lu am fay lay def gannaaw soo defee benn ci waxtu woowu mu tolloo juróomi téeméer juróomi téeméer ak benn bu benn mu léegi nag mi ngi ñëw ci wir euh, wasifa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 ثم الهيللة مئة ثم جوهرة الكمال اثنتي عشر مرة وشروطها كالورد ووجب بها جهر وتحليق بجماعة وجلوس إلا لعذر وعدم تخليق ونجب حضور وترتيل واستحضار كالورد ونشر ثوب طاهر عند جوهرة الكمال و شرط لها المائية وإلا عوض عن عددها عشرين من الفاتح وجازت الوظيفة على الدابة بسفر ونزل يمشي بطاهر في الجوهرة إلى السابعة فيجلس إلى التمام إلا للنحو خوفه منى وظيفة كونك وظيفة ما أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم fanweeri yoon bu la neexee nga ne astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alxay alqayum wala nga ne astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum boo ci wax rek wér na fanweeri yoon su ma topp nga jàng salaatul fatihi juróom fukki yoon mu ne ku bëgg a jàng wasifa nag te mokkal salaatul fatihi su boobaa wasifa waru wasifa wàcc na ko su boobaa soo ko mokkalee na nga jàng ko juróom fukki yoon topp nga jàng laa ilaha illallah téeméeri yoon jàng jawaratul kamal fukki yoon ñaar mu ne sarti wasifa mooy sarti yëpp dégg comme nam la ko waxee woon démb ne da war a laab laab ak xadas jilee da ngaa war a jilee ak laab ak xabas maanaam nga laab ci jëm laab ci sa mbubb laab ci barab bi nga koy defee suturaal sa awra lu mooy nga am ngan te sutura sa awraay góor waxoon nañ leen ko mu ngi commencé ci jumbat ba ci ay oom awraay ji jigéen léppam awra la doon des kanamam ak ñaari tenkal te waroo waxitan ciit di ngay jàng sa wirde lu mooy benn baat walla ñaari baat lu mooy nga am ngan mu ne wala war sa ñaari baay kenn waxe la ca wala jigéen jëkkëram waxe ko sëriñ itam su waxee taalibe fekk ma ngay wasifa wala ma ngay wirda mën na koo tontu gannaaw mën ngaa tontu sa baay rek mën ngaa tontu sa sëriñ mu ne sart ci wirda woowu nag mooy sart wasifa ba tey waaye war na ci wasifa ñu biral ko maanaam sooy jàng wasifa du ne da nga yel da ko war a biral war na ci wasifa itam ñu def ab cercle loolu mooy taxdir maanaam ñu toog def daayira war na ci wasifa itam mbooloo ak toog lu mooy nga am gan ca war na ci wasifa itam baat yi ànd ñu bañ koo jaxas topp nañ nag nga nga teewlu li ngay jàng def maanaam sa xol bi teew ci jëf li def ak nga jàng ko ci tartil maanaam ci lu diib doo ko jàng ci kaw yàkkam war na itam ngay teewlu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala nga teewlu ci Ahmad Tijaani wala nga teewlu sëriñ ba gën a jege ci tariqa comme nañ la ko waxee woon te wirda soo jàng dem naa ci benn bibliothèque ci ut ay manuscrits bi waa ji xamee ne Tijaan la mu ne ah whenever the Tijanis come we will lay out the red carpet for them Tijaan yi waxtu wuñ fi ñëwee rek sajaada bu xonq lañ leen war a laral maanaam sajaada yu xonq yooyu ñuy laral chef d'état yi ñuy wàcc ci avion mooy Tijaan yi tam waxtu wuñ ñëwee fii rek ci seen kër la dañ leen fee war a teral dañ leen a war a lalal itam the red carpet dégg nga tijaan yi ci njëlbeen amuñoon ay zaawiya ñu ne ci mbedd yi lañ daa sikkare pour sellal jataayab sikkar bi moo taxoon ñuy lal mbalaan moomu mu éviter sobe yi ak itam ku leen gis xam ñii dañoo nekk ci sikkar waaye lu ci man di xew rek moom topp nañ nga lal mbalaan moomu rot na itam ne jawaratul kamal waxtu woo ko jàngee juróom-ñaari yoon rek yonent bi dana teew ak xulafaawul arbaat yi abubakar ak omar ak usmaan ak aliyu ak cheikh ahmad tidiane ñooñu nag gannaaw dinañ teew lal mbalaan mi ba tey luñ topp la luñ bëgg la mu ne sart la itam ci jàng jawartul kamaal nga laab laab ndox maanaam duut ku tiim mën na jàng jawartul kamaal te jàng wasi nit ki su tiimee rek su agsee ci jawartul kamaal ci wasifa daf ko a wattee ñaar fukki salaatul fatih ndax ku laabut laab ndox war jàng jawartul kamaal mu ne dagan na itam nga jàng sa wasifa fekk yaa ci kaw daal ci picc soo nekkee ci automobile wala nga nekk saxaar mën ngaa jàng sa wasifa mu nag waaye waxtu woo ak ci jawharatul kamal da ngay wàcc daaba ja di dox di jàng ba ak fekk jawar a juróom-ñaareel ba su boobaa nga toog ba wës foo ma ndaree nga ndaree nga ragal maanaam ne fii ngay toog fi wóoru ab salte mën na la fee def sàcc mën na laa def gar yi mën nañ laa def soo ragalee lu noonu kon toogaay boobu warul wa illaa soo nekkee ci luy war luy daw tool tey ci jawaab bi Kamal au lieu nga jàng jawaab bi Kamal nga jàng faat faat yi ñaar ci yow lu mooy nga xam ne yow nga mën a wàcc ci dox ba àgg ci jawaatu saabia nga toogal ko ba ba wëcc ko womat <coughs> mu ne wa atal masbuuqu bima faatahu baadal faraaxi laa qablahu وختم كل ذكر في آخر اليقين وعمل فاس على تركه بعد الاستغفار والهيللة وختم وختم مئة الهيللة بمحمد رسول الله عليه السلام الله وختم الجوهر برفع الأكف في الأخيرة وجلسة كالصلاة عند السابعة والختم بآية إن الله وملائكته إلى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة يقين ثم رفع الأكف والدعاء سرا ثم مس الوجه بهما ثم مصافحة من على يمينه وشماله ومن أمكن بعده mu <coughs> فكنا دنجلا na dañ دنجلا faat ci wëz li la fàtte wasifa wa su wasifa wa matee da ko wara dabatal dabaatal dudne da ngay ñew pour dabbe sa àgg ci nit ñi àgg nga togal and ak ñoom déedéet so ñewé ci wasifa yi dal da ngay and ak nit ñi ci nga leen fekk ba wasifa wa mat su ko nga fay lañ la rawé <coughs> mune sikkar sooy tëj rek war nga koo tëjee subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin mu ne waaye waa Fass nag seen doxalin du noonu waa Fass bu ñu tëjee astaghfirullah alazim alladi laa ilaha illa wa hayyul qayyum subhaana rabbika duñ ko tëjee itam laa ilaha illa laa ilaha illallah waaye au lieu ñu tëjee laa ilaha illallah subhaana rabbika ñoom ñu ngi koy tëjee muhammadun rasulullah alayhi salaamullah jawaratul kamal daal moom lañuy ñuy yëg jawaratul kamal bu mujj ba maanaam bu fukkeel ak ñaar ci la yëkkati seeni loxo ñaan toog itam toogaay yi ci julli te jawharaat juróom-ñaareel maanaam waxtu wuñu àggee ci jawara juróom-ñaareel rek nga xam ne mooy ci yonent bi teewee ci wér koy boobaa toogaay yi ci julli la ñu war a toogee su matee ñu jàng laaya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman nga soog a jàng subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mooy su ko defee ñu yëkkati tenk yi ñaan ci yàllu suñ pare itam ñu mas ñu masa suñ kanam nga nuyu ko nekk ci sa ndeyjoor nuyu ko nekk ci sa càmmooy ak koo mën a nuyu ak koo mën a jot ci mbooloo mu ne wa xamala al imaamu sahwa al wazifati wal munfaridu yajburu kal wird mu ne wazifa nag waxtu ci maamum amee benn yàq lum yàq ci wasifa wi rek ilimaan ji jiite wasifa wi moo ko koy waaye nag soo demee ba nekk yow kenn di wasifa mu ne comme na nga war a jàngee lépp lu damm ci wirde wi rek noonu ngay jàngee itam lépp loo xam ne damm na ci wasifa wi soo wala nga yokk wala nga wàññi wala nga jiital yëf yi deel ko boobaa na def sa wér de rek moom ngay def ci ci wërsëg maanaam la nga la la faat nga indi ko nga indi ko ba pare wax astaghfirullah téeméer yoon baax na ñu am foofu def ko yàlla wala muy kuy mooy mu ñaane ci waroon boo doon nangu kenn daal ci Ahmad Tijaani wax na su laajee ko jox mu ñaar kii di tux cigarette kii di naan sàngara su ñëwee ñaan tariqa bi moom dana ko jox kii di naan te ko def ko ndax lan kii naan moom xam na fenn li muy def daganu des mën naa ñëw mu génn jël tuub itu kalau na dana ini dan juga def ci dara ñu ngi lakk alalam di yàq santeem ndax docteur yi dem nañ ba ne cigarette bu nit tuux rek wàññi ne juróomi minute ci dundam te mën naa yàqaale sax xolam kon kooku mu ngi def noo xam ne yàlla na ko ndax yàlla wax na ci alquran wala tus ko bi ay def ci abu bu leen sànni seen bopp ci banque te loo xam ne yaa ngi koy def ci ñàkk sa alal du lekk du naan ci ñàkkaare te wér gu yaram mën naa yàq xol bi sax te yonent wax na sallallahu alayhi am na aw lumb ci nit su éwénee jëmm yëpp éwén na su yàqoo jëmm yëpp yàqu na loolu mooy xol kon lépp loo xam ne dafay yàq xol boobu loolu gis ci waxuma la war na ko éviter waaye war na koo daw comme ni ñuy dawee gay def fekkoon ne na mu wax ne farita bi ay sikkar la ci wirda suba ak wirda ngoon jàngatoon nañ keroog wasif mu des nag ci ker si àjjuma yii paase nii wird ak wasifa bu la ci faat rek war nga koo fay ci ker si àjjuma nag amut fay man faatahu faqad faatahu xayrun jëmm képp koo xam ne ci ker raw na ko rek ñu bëree bari raw wasifa su la géew bi rawee liñ la rawee soo ñëwee da nga koo war a ci suñ ci pare liñ la rawee da koy seet lu mooy ci àtte jàngkat ak jàngalekat yi comme yéen ñii yéen lu ngeen fekkee jiwóor par exemple may nañ étudiants yi ak jàngkat nga xaar ba mu des juróomi jawaara wala ñeent nga dem fekkee fekk jaag ñaan nga te su paree jaratu ngay xay du leen booloo rawee mu ne sikar ci àjjuma nag bokk na ci ponki tariqa tànn nañ ko ci waxtu wi mujj di sab àjjuma ndax lan bis bu nekk rek am na ci waxtu nangu ne bisu àjjuma nag wuute nañ ci waxtu nangu ñaan ci sat wax nañ ne mooy waxtu jant bi fenk ñu ne déedéet mooy waxtu wi ilimaan bi di toog ci minbar bi pour xutba ajjuma wala ci ilimaan xutba xutba bu njëkk yi ba toog diggante bu ndaw boobu loolu mooy waxtu boobu ñu ne déedéet mooy waxtu bu mujj saa si a dënkal maanaam saa si ci ajjuma mooy waxtu nangu ñaan ci ak tijaan nag au lieu mu toog di ñaan yàlla lu ma toog di ñaan ndax lan rot na ne yàlla ne koo xam ne tudd ma soxlaloo na ko walit mu toog ma ñaan danaa ko may lu ëpp li may may ñe taxaw di ma ñaan waaw nga xam ne kon waxtu yow yaa ngi koy dundal ci ay anam yu bari ci anami sikkar yaa ngi koy dundal itam ci anami xaar julli yonent bi ne antum fi salaati man tawartumuha yaa ngi toog di xaar julli bi rek yaa ngi ci julli maanaam nga toog di ci kër ak jiw ba timis ba ba ba la timis bi fekkee foofa loolu yëpp dinañ la ko konteel ba pare itam yaa ngi ci yàlla ci waxtu bi nga xam ne mooy waxtu nangu ñaan ci jël nga xam ne moo gën nga toog tàllal say loxo di ñaan yàlla ndax yàlla dina la may ci loolu loo ne du ko may ñi toog wala ñi taxaw tàllal seeni loxo di ñaan mu ne wa zikru yow wa zikru yowmi jumuati mutaakidun baada salaati al asri wa amalu faas taqdimu l wasifati wa yantahi lil gurubi bil haylanati ila adadin wa shartuhu l ixwaanu wa in in wujidu wal jahru wa taxliqu wa illa فعل وحده وإن شغل أخر لقرب الغروب بنحو الساعة وإن شاء جعل على نفسه ألفا فأكثر من الهيللة وتنتهي الزيادة بستين إلفا واتبع مصطلح بلد في الذكر كالخلوتية إن وافق فعل الشيخ وهي أفضل وإلا فالصرف فولاه. هنا تكري أجمل lu ràññeeku la lu faddu la ci bésab gannaaw julli takkusaan maanaam ci jullee takkusaan fa jant bi sa loolu mooy waxtu mu ne am naa waa Faas nag seen yoon ci ci kere àjjuma mooy jiital wasifa gannaaw julli takkusaan dañuy wasifa ba ba pare soog a soog a sikkar sikkari àjjuma waaw sikkaru àjjuma lu fadlu la ci desat àjjuma gannaaw julli takkusaan loolu mooy waxtoon waaye nag fekkee ne ca waa la ñoom dañuy jiital wasifa wasifa ba pare soog a dugg ci sikkar si ba ba jël sa day sooyee boobaa suñuy sikkar amatu diir bu war a em moo tax yow mii dabe waxtu woo duggee ci sikkar rek soo fa fekkeewal benn laa ilaaha illallaah sax doy te sa bàcc ñu doon wutag wërsëg ba nga xam ne suñ la rawee wërsëg pare nga fay sikkar si aj moom benn laay laa ilaaha illallaah rek soo ko ca fekkee yow am nga sikkar si aj mu ne bokk na ci condition yi sikkar yi àjjuma itam moom mbooloom tijaan bu nekk ci dëkk ak fekkee ne mën naa am te suñ koy def dañ koy tiiral duñ ko yoll dañoo war a def daayira maanaam su fekkee ne ay mbokk tijaan nekkuñ ci dëkk bi te nga bëgg si kër àjjuma yow kenn mën na nekk waxtu woowu mën a dugg ci gannaaw julli takkusaan su fekkee nag am nga ay engagement yoo xam ne empêché nañ la ba mënoo julli takkusaan rek dugg ci xam ngaa xaar ba waxtu yi nga xam ne nag mooy waxtu ci këri àjjuma mooy jotee benn waxtu pour jant bi so ko defee nga toog su fekkee ne yow kenn la nga nga sikkar baata laa ilaha illallah nga wax ko junne yoon loolu ak jaan bu ko defee rek ci carnat bi wa illa fekkee ne toog ngaa sikkar lu ëpp loolu mun a nga def junne ak juróom benn téeméer mille six cent loolu mooy maximum minimum daal fekkee ne yow kenn def nga def mille fois laa ilaha illallah fekkee ne dangaa bëgg a passé loolu maximum bi na nekk mille six te nga topp dem yoon bi nga xam ne réew mi nga nekk wala zaawiye bi nga sësat ni ñuy doxalee ko ci kàdda nga topp leen ci loolu ndax ponk bii moom ci tariqa tijaan ñu ngi ko jëlee ci xalwat ci Ahmad Tijaan yi avant muy nekk avant muy am tariqa boppam nekk na ci tariqa kaat na ci tariqa xadiis yi nekk na ci tariqa naasiriya jël na xalwat yi itam moom la mujj jël avant mu dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci duut nelaw yonent bi jox ko tariqa bi moo tax wirde wi ak wasifa wi moom daf koo jëlee ci yonent bi direct si kar si àjjuma nag moom ni ñu ngi ko jëlee ci tariqa xalwat nañ ko daa defee ñoom sax noonu lañ ko daa defee ci gaaw yi maanaam ñoom dañ daa taxaw def seen circle di fecc bàyyi nee na ba bàyyam demee Fass mille neuf cent onze daf leen a fekk ñuy taxaw di sikkar àjjuma sax di jaayin mooy ñu ñëw naan bu góor gi yëngatul yow yëngatuwoo bu baax loolu nag benn sët si Ahmad Tijaani moo ko aaye ndax dafa ñëw fekk leen ñuy fecc fecc moom pare daal nee na dëppoo yar nga leen dégg nga leen topp taxaw ba fekk ñu su fekkee ne nag yow bëggoo limité sa bopp ci sikkar bi soo bëggee soo bëggee limité nee na bul passé mille six cent waaye su fekkee ne mbooloo la nag మంచి కథ గుబజన తీసుకోవాలి వరకు వెళ్ళి tariqa tijaan nag gannaaw bu mu la waxee condition yi ñu koy jàppee waxal la wirda wi naka la ñuy wirda wirdaaw suba ak ngëneel yi nekk ci soo ko bëggee ci jël ci guddi maanaam benn waxtu gannaaw buñ jullee gee man ngaa jiital sa wirda ba ba fajar bi xare ndax ngëneel gi nekk ci sikkar yi ndax boo jàng benn yoon wala laa ilaaha illallaah boo wax benn yoon da nga am yooli ci ko wax ci bëccëg bi juróomi téeméeri yoon su boobaa a jiital wird am rek ci ngant ak ci lu duut ngant mën naa jiital wird bu baax wir daaw tàkkusaan yow mënoo koo jiital ci bëccëg waaye nee na fekkee ne wóor na ne ëllëg ca takkusaan da nga am ay empêchement yoo xam ne dana dox sa digganteeg toog di wirde soo jullee takkusaan man ngaa jiital wirdaaw suba bi ba pare te teg ca wirdaaw takkusaan bi nga xam ne dina ñëw ëllëg ca takkusaan guddi gi boobaa waaye toog bëccëg bi rek nga ne tey man rendu jot na cinq xaaral ma jiital wirde takkusaan loolu mën ko nekk waaw tariqa bi dafa taxaw ci alquran ak sunna moo tax ci biir alquran ak sunna soo ci wëree tariqa tijaan da ko gis waaye soo génnee rëdd woowu doo ko gis ci Ahmad Tijaani lépp lu mu la wax rek man nga koo delloo ci kitaab wala ci sunna sunna gis na yonent bi saalihin yi ba léegi ñu ngi ci woote na yonent waxal na boppam ci xadis ne man raani fi manaami faqad raani xaqan fa inna cheytaana laa yatamassalu wala bu wax feneen ne man raani fi manaami fa sayaraani képp ku ma gis ci nelaw man la gis ca dëgg-dëgg ndax cheytaan man la jël sama forme feneen mu ne képp ku ma gis ci nelaw dana ma gis ñu ne dana ma gisi balaa dee dana ma gis réew yu bari ay awliyaaw yu limu ku ci nekk rek oote nga gis nañ jalaal bin Suyuut wax na ne gis na yonent bi ëpp juróom-ñaar fukki yoon ak lu tegu ca mu di ko wéralal ay xadis ndax moom taalif kat la taalif na téere yu bari ci xadis jamul jawaame jaamul kabir jaamul sawet yooyu yëpp ay téeréem la léeg-léeg mu am hadis bi ci sikk ndax wax yonent bi la yonent bi feeñu ko ne ko maa ko wax wala mu feeñu ko ne ko du suma wax waaw jawaab bi am na ko ci jaab lu kaddu sii wax na ne takkul jabar lu may yonent bi moo ko feeñu ne ko takkal jabar abul abbas il wax na ne ñeent ci at yi passé mu yonent bi fàttoon benn gendeeku rek du ma jàpp suma bopp kenn comme si Cheikh Ahmad Tidiane ñëwee ne gis na yonent bi mu ne ko kon waxut ñu lu bees lu mën a nekk la waaw ñi koy wet bi sax gis naa di leen téere alhadiyatul hadiya ila saida Tidiane boromam ma ngay wet Cheikh Ahmad Tidiane di ko linkaar ci li mu wax ne gis na yonent bi mu ne ko te moom ca biir téere ba ñu ci wax ne gis na yonent bi ci nelaw yonent bi di ko wax moom mën naa gis loolu est lu tax mu di ko di nga toog si Amadou Sidia kii nii ñaari at ci gannaaw xëy naa jot si benn lettre donc kon waxuma ko kenn ci dëkk bi ngoon di jot benn waaye ñëw ne ma gis naa yeneen ne naa la wax ne bind lettre di yoon wi am naa lettre sax ci bés boobu loolu moo ma xamal ne kii li mu wax dëgg la dégg nit ñu baax ñu ba léegi ñu bàyyi ci ba muy faju pare nee na raaytu rasulallahi jahran wa yaxratan bi taarisa andaakal mu ne gis naa yonent yàlla muhammad ci ñeenteel ci lu duur nelaw ndax tari sax xalaat la bu war a jëlee yonent way la kon cheikh bi ñëwee ne gis na yonent mu ne ko ñun dinañ ko gëmal li mu wax ndax Cheikh Ahmad Tidiane jàngkat la borom xam-xam la am na li yonent bi wax ne man kadaba alayya mutaamidan falyatabawwa maqadahu min annaar képp ku ma dugal wala nga fenal ma ci kaw tayee na nga na tànn palaasam ca safara Cheikh Tidiane jàng na xadis boobu nag ko jàng mukk ba pare ñëw di fenal yàlla ku fenal mbindeef doo fenal yàlla ndax ñoom ñi ñoom ñi dëkkat ñëpp kenn mënta woote ne Cheikh Tidiane mas na koo fenal benn dëkk wala mas na koo tappale dara ku tappale woon bindee bii nga nekkat parce que da nga leen jéggi ci dem di tappale yàlla wala ngay tappale yonent man su nekk dégg suñu waxee ne wax leen astaghfirullah tariqa bu baax la ndax kenn ci ñun tey mënta garanti ne moom maafu maanaam li ngay def yëpp cent pour cent da ngay nekk correct tey da ngay def kay mu jub wala ngay nga def mu jubati soo defee mu jubati yoon yu nga cee génne yonent bi leeralal nañu nee na daa ukum ak sunub wa dawaa ukum al istighfar seen ràgg ràgg yaram yi ràgg yaram yi wala seen feebar yi seen malade yi mooy bàkkaar yi remède yi garab yi nga xam ne moo war a faj bàkkaar yooyu mooy war faj feebar yooyu mooy nga wax te moom su duur dara sax yàlla moo ko santaane ci alxuraan te bépp ndigal bu bu rot ci alxuraan rek waajib la ci jullit bu tegoo yàlla moo wax ne fa qul istaghfiru rabbakum innahu kaana gaffaaran yursil samaa alaykum midraara feneen mu ne wa an istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi mastaatu mataan xasanan ilaa ajalin musammaa yooyu yëpp ay ndigal la yu jëm ci ñaan yàlla bu baal la jëfandikoo baata astaghfirullah yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla baalal na ko ay bàkkaaram yu jëkkër yu mujj waaye ak loolu kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yastaghfirullah fi ma bayna al-yawmi wal layla akthara min sabina marra wa fi riwayat akthara min mi'ati marra nee na yonent bi daana balu yàlla di tuub bés bu nekk juróom-ñaar fukki yoon beneen mu ne bés bu nekk téeméer yoon su fekkee loolu mooy gaaw yonent bi nga xam ne yàlla moo wàcc ci moom innaa fatahnaa laka fathan mubiinan liyaghfira laka allahu maa taqaddama min dhanbika wa maa ta'akhkhara foofu moom amee ay bàkkaar yooyu jiite yu mu yëpp baal nañ su fekkee loolu mooy kaam ñi nga xam waxuñu loolu kon lu war a nekk suñ ka sookee dañoo war a balu yàlla tariqa bu ñëw ne la balul yàlla rek booba tariqa bu baax la ci yow ñu lay awale ci salaat mu mustaqim ndax soo fi nekkee di tegale ay bàkkaar su su yàggee dafay nekk yëpp ay gàtt-gàtt ci xol ci xol ci xol soo xol ba dafay lëndëm te xol bi su lëndëmee leer ak yàlla bu ca tabbi yàlla du tey xaj yàlla nee na xajit ci asamaan juróom-ñaareel asamaan juróom-ñaar xajit ci suufi juróom-ñaar waaye xaj nekk ci xolob jaam bu gëm xol bi gëm ba yàlla mën a tàbbi ca xol ba xol bu sell la war a nekk waaye xol bu fees benn ak ay jàkk ak ay tilim ak ay lëndëm booba xol yàlla du ca nekk comme niñ ko waxee woon sànq lumbu yi nga xam ne ci doomu aadama yeneen si wax na ne am na ci doomu aadama jëmmi doomu aadama lumbu woo xam ne su xéwénee jëmmi ji xéwén na su yàqoo jëmmi ji yëpp yàqu na loolu mooy xol kon ku bëgg leeral yàlla tabbi ci sa xol wala yàlla ci boppam sax nekk ci sa xol war ngaa éwénal xol boobu war nga koo sellal te bokk na ci yoon yi yooyu ngay ñaan sa mu baalal na rëcc rëcc yi ak bàkkaar yu feeñ yi ak yu nëbb yi nga xam ak ya nga xamut astaghfirullah moo lay génn ca loolu su su tariqa bi ñëwee ne la waxal laa ilaha illa allah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli laa ilaha illa allah lu gën ci lu ma wax maag yeneen bi yem a jiitu woon mooy baatal laa ilaha illa allah beneen yàlla wax ci xadisul qudsi ne laa ilaha illa allah xifni man qaalaha daxala xifni wa man daxala xifni amina min azab mu ne laa ilaha illallah mooy sama dara képp koo xam ne ci sama dara te bu dugg na sama nga gis ci alquran ne mbooleem xeeti jàmm yàlla yi dañ leen a limité yow xam nga julli juróom rat julli bu nekk ñaata ñaata rat nga ca war a am weeru koor benn yoon la ci at mi benn weer ci at mu nekk soo amee alal bi war a génne asaka demi pour cent ko mënee dem màkk aji nga dem benn yoon pour aji màkk mooy farata bi waaye sikkar nag yàlla def laa wax ne wazkurullaaha zikran kasiiran laal barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan